bi nee na sëriñ Masamba Diop Sam moo ko ko nettali moo àndoon ak Cheikh Ahmadou Bamba ñuy tukki bi ñu jàddee jaar ci kër benn taalibe taalibe bu bu jigéen mu daldi di jël la mu mën ci xeeti bernde ci jamono yooya mooy wut soow mu baax lool dal di aw mburu bu baax lool dal di jël ab dax dal koy def ci biir soow mi nga xamee ni bi soxna si taaj na ndab loolu bay dem sëriñ Masamba Diop Sam nee na ma dal di jël ma daal di xar mburu wi yóotu ndax bi bëgg ko ci dugal ci biir ci tàngoor ngir mu seey ci ndax loolu noonu lañ daan terale ci jamono yooyu nee bi ma yóotoo dax bi Cheikh Ahmadou Bamba daal di may gëdd ne ma loolu ma ne ko ah damaa topp aada damaa jàpp ne ni mu doone aada rek fu soow mii lakk mburu bu tàng jox la jël ab dax teg ci mooy am nga sañ-sañu def ko Sëñ Tuubaa ne ko inta bi an an zànni ne ko bàyyil sa njort loolu yeewul wëlif sa njort loolu ndegam tudd ko bul ko laal naka lañ barkeelu ci mburu mi ak soow mi ba sëriñ Masamba Diop Sam jël ndab li delloo ko soxna sa naka la koy taaj soxna si xool ndax bi mu def soxna si dal ne inna lillahi wa inna ilayhi jël ndab li delloo ko soxna sa naka la koy taaj soxna si xool ndax bi mu def soxna si dal ne inna lillahi wa inna ilayhi ah xaw ma woon ne sëriñ bi aajo woowul ndax bi sëriñ Masamba Diop Sam nee na bi mu dellusee si Amadou Ba mu ne ko waaw ana lu mu wax mu ne moom day nee na am nag jaaxle ndax xamutoon ne danga aajowul ndax bi sëñ Tuubaa ne ko waaw mi ngi noonu juum ba bàyyi fi lu ma dagan moo ma gën moo ma gënal ma juum ba jëfandikoo am lënt loo xam ne lii wóoru ma ne maa ko moom sëriñ Masamba Diop Sam wax na ak Cheikh Loun Diop dagana ne nekkoon sëriñ bi ci jëmmi boppam daf ma doon yar ci sàmm rek waaye moo gën a xam ne ni mu nekk aada ci réew mi soxna si bi mu ñuy jox teraanga jooju ndax bi ca la bokk waaye man mii la bëgg a jàngal ak sàmm ba mu nekk lee xisa ba ba noppi beneen xisa teg na ko ci boo xam ne mooy wane sàmmuk si amul bamba gu doy waar ci jamono benn bi sëriñ Momar Anta Sali dafa xëy yebal sëriñ bi ab yónnent ne ko boo doxee yónnent ba noppi boo wàññi koo nag ma fekk piir kër xaaji bu Bakar Fall sëriñ bi jógee ci yóbbante boobu daal di àgg piir fekk bisub keroog ni sëriñ mu ma daan de sëli gane see xaaju Boubacar Fall bisub keroog Lat Joor Lat Joor nekkoon buur ci jamono yi moom it mi ngi gane si buur euh, xaadi boobu xaadi ma jaxate kala it ma nga ca bokk benn naar bu bari woon xam-xam ñu koy wax Cheikh Ibrahima al Baghdadi it ma nga bokkoon ca ngan ga sëriñ bi nee bi mu duggee ci dëkk bi nee na dégg ñi ngi toj ndawal gi kër yi kër gu nekk rek ña ngi fay taal ak a togg dëkk baa ngi xeeñ xunn ak ñam woowu ñoxoon moom la terale buur ak ñooñu sëriñ bi moom nee na fasul yéene ñaanul yàlla xet googu xeeñ ko waxuma laa di ko mos waaye naka la génn ba génn dëkk bi fekk tool mel na toolu gattax walla jëmb bu sax bu gudd ba dem ba ca kaw am keppaar mu dal di dem toog ca keppaar ga daal di ubbi ay téeréem nekk ci ay mbiram waaye ci saa si am ndaw lu ñëw woo ko ndax yëg nañ ne dugg si na ci dëkk bi ne ko kaay wuyu xaadima jaxate kala sëriñ bi bi mu duggee ci néeg bi fekk kaw lal bi xaadim bu Bakar Fall mi ngi toog Cheikh Ibrahima mi ngi toog Lat Joor mi ngi toog xaadima jaxate kala mi ngi toog léegi Ibrahim al Baghdadi di naarub irakien boo xam ne li mu mokkaloon ci xikamul xukama ak ashaaru suara ak xam-xamu uda baaw yi bi nga nettali rek jataay bi neex lool nee na xaadima te kala daal di wax sëriñ bi ne ko maa woo daal di yóotu benn bantum xat ci permi mu wéeru damm ci bant bi sànni ko ne ko bindal ma xikam yi nga xam ne moom Ibrahima al Baxdaadi di wax Cheikh Amadou Bamba nee na bi mu demee bant bi ba sànn ba sànni ma ko tuuti ma xëm ndax ñàkk sàmm gim ñàkk sàmm nee na ndegam nag ndaw laa sañu maa wax nee na ma daal di def ak ñeewante foofu daal di sàkk kenn ci xaasiye bi muy dagg yi mu génn ci mbooy gi wutal ma bant bu mat bu man xalima kooku dem wutal ko bant bu mat xalima bi mu ñëwee xaadimu si Ahmadu Bamba daal di sot bant bi xaadima jaxate kale xam ne lim def mu daal di ree ni ko xasanan ba tey waaye nag daal di ree ree yi kiimtaan foofu waaye bi nga xam ne waxtu julli jot na xaadi daal di wax sëriñ Mamar Anta Sali ni ko doxal ñu doxal jiite ñu ñu julli sëriñ Momar Anta Sali dal di wax ak Cheikh Ahmadou Bamba ne ko doxal jiite ñu ñu julli jataay boobu nag bi mu tasee am na benn jeexit benn taasir bu mu def ci xolub xaadi bu Bakar Fall mi nga xam ne moom lañ gane si daf ne mag ñii ak ni ñu mat mage gone gu góor gii sàkk gi ñu sàkk mu jiite leen julli am na ngëneel lu ñu xam ci moom ba tax ñu jiitaloo ko ñu jiitaloo ko julli loolu gis nga moo topp xaadi Boubacar Fall moom ba jël na sax doomam ju jigéen jox ko ak Cheikh Ahmadou Bamba muy soxna xarit Penda Fall am na ci doomi Cheikh Ahmadou Bamba yi ña ñu suul ca xuru Mbàkke ku tudd Abdul Wahab Abdul Wahab moomee soxna xarit Penda Fall moomu mooy way juróom wu jigéen ak Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ko séq waaw xissa boobu bi mu jàllee am na benn xissa bu mu nettaliwaat moom Cheikh Lune Diop dagg na ci téeréem boobu xissa buy wane sàmmuk si Ahmadou Bamba ak ni mu donne Mouhamed alayhi salaatu wasalaam ci wet googu am na soxna soo xam ne ak jànq la daal nga xam ne am na mbokk ak sëriñ bi fekk sëriñ Tuubaa xam nga moom fu masaana toog day mel ne kuy xool fi muy jullee sëgg ci ay téeréem ak i bagaasam du yëggati bëtam lu yëngu mu xool ko soxna si daal di wëlbati waaw kii moom muuroom gi muy muuru ak wan ginnaaw nit ñi xanaa moom du jaxasoog nit ñi daal di koy féete ginnaaw jàpp ci lafu mbubb sëriñ bi ñoddi na ko la ñoddi sëriñ bi moom it daal di ñoddi mbubb mi soxna si daal sëriñ bi ñoddi Abdul Chamad Bamba xool genn ñaw mel ne saatu su nekkoon daal daal di koy ci mbubbum boppam mi daal di ñoddi tipp dagg laf fa daal di topp soxna si sëriñ bi daal di sëgg fi mu sëgg nekk xam ne ne bu nit di am gàcce kooka gàcce dina ko rey waaye ginnaaw loolu mu nettaliwaat ñaari xissa yuy wane ak sàmmoom nga xam ne ku dend ak moom wala nga dëkk ak moom da ngay tënku ci sàmm googu ana loolu mooy lan mooy ba mu nekkee gànnaar am na ci taalibe benn xale bu góor boo xam ne dafa bëttoon diggu diggu sharia nga xam ne buñ ko àtte woon lislaam dana teg ci moom ay daan yu metti Cheikh Amadou daf koo dàq mu jóge ci jataay ba Cheikh Lour Diop Daga nee na ba fii ñuy wax fi may waxee yéen xale bu góor bu gisaatuma ko xawma nu ba ko sëriñ bi dàqee bu fi ñu toll nii gisaatuma ko waaw bi mu jógee gànnaar ñëw jolof ba ñëw njaareel am na yeneen ñaari xale yu góor yoo xam ne it tàbbi woon nañ ci lu sharia war a dale ci seen kaw ay daan yu metti ñaar ñooñu suñ tubaab dafa ne daje dañ dajale lañ ñu amoon ci bagage ñu dajale ko mu ne nañ ko taal ñu lakk seen bagage yi su doonoon jamono da wax ne tëj kaso mu tumu leen dox